assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakatuhu ñu fas yéen diggaan ci naafeeg tey gi muy guddig ñeenteel ga ku ci julli ñent rakka ñaari selmal rakka bu ci nek fatiha ben yoon qul ya ayyuhal kafirun basar wa jeex ñatt yoon des nako ci bindalu tuyaabee jaamuk yalla jundi nit te des nako ko jéggal bàkkaaram yépp bala moo jógee fa mu doon jullee kon looloo nekk mbokki guddi tay gi muy guddi ñentel ga ku ci julli ñent rakka ñaari selmal rakka bu ci nek fatiha ben yoon qul ya ayyuhal kafirun basar wa jeex ñatt yoon assalamualaikum warahmatullahi